une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu bokk yëpp di leen baal xaq te di leen baal xaq di jéem a tontu ci ab laaj muy lenn ci luñ mën a tënk ci li alaaji Muhammadul Faadal sottal ci ak nekkam am na lu bari loo xam ne ginnaawam la soog a sotti waaye lenn ci liy sotti ci ak nekkam ba ca jiitu mooy alxuraanul karim ji nga xam ne moo gën a boole jullit yi te sunu boroom wax ne moo ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo koy sàmmal boppam ba li feeg ab jullit a ngi am ci kaw suuf si alxuraan di fi nekk ba yàlla nammee mu sotti ci lañ ko dajalee bind ko kon bokk na ci lim sottal bind na ay kaamil alquran yu bari bokk ci ñi fi bàyyi alquran mu defi des ba faw ñaareel bi it ajjina màkka aj màkka wane ca aw yoon ci ne jullit bu nekk duñu wax ne bu ko mënee rek waaye da ko war a jéem kem kattanam ba ni muy sottale yeneen yi mu fexe ba aji mag la ca dolli ko mooy euh, bokk na ci ñi juo loxo ba ay wara bi liggéeyukaay mën a am ca ay jamonoom muy laaj ñam ko war a laaj ay suuf Euh, liggéey ko ba aw nit yu takku ci ab lim di ca jariñu yooye it mu ngay dox ba fii mu nekk am na bataaxal boo xam ne mi ngi ko bind sëriñ Issa Jenn di ko ca yëgal ma Madina mbooba bataaxal bi mi ngi man waaye la wax ne moo tax mu sanc dëkk ba mooy li tarbiyati wal xidma wéet fa ak njaboot gi defar leen tey ku ca wërsëgam nekk it mu mën caa jariñu bokk na ci nag yim sottal yi ci gën a fës xam naa su Tuubaa mënoon a wax moo ñuy gën a yey ci di sa jaar ak suñu làmmiñ waaye biñ demee ba Touba mosu su koo dégg mu wax it mënees naa teg loxo loo xam ne dara du ko dindi ci ne moom moo ko sottal ci Touba ba ci jiitu mooy Touba fii mu nekk ca jamono yooya yombutoon a demee nii mu yomba demee dañ daan wax daa sori. am na ñuy jóge ci ay dëkk fu mel ni so ndakaaru naan see Touba daa sori mu mel ne baatub daa sori moom ku nekk ak na mu koy dégge ndax ñaare bare na ku jóge Touba dem ndakaaru naan see seen dëkk bi daa sori kon fi sore ak fi jege aw déggin rekk la waaye jamono yooyu daal Touba moom nit daana sonn lool door faa dem fekkoon na nag mu am ab raay boo xam ne a Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, moo ko sottaloon ci ak nekkam ànd ko ak taalibe yépp ak njaboot gi waaye nag teewut euh, yeneen yoon mën a am yoo xam ne mën naa gën a sori fu muy dem mën a gën a jàppandal ñëw ak Tuubaa muy ay tali loolu mi ngi am ci ak nekkam la ci gën a doy war nag te suñ jamono war caa jël bind mooy tëli yooyu dañu ñëw Touba jógee wetug Ndakaaru ba ak si Touba jàll ba Linguère ba bu yàggutoo ñu jàllale ko maatam muy law di dem ak jële ko kafrin mu ñëw Touba jàll jaar misra daarul moxti jëm ndóoyeen jaar sagata ba kebe meer lompul ci ay jamonoom la sotti kon ci ay jamonoom la Touba gën a ubbiku ci la boo mën a jóge mën ngaa jaar ci ab tali ba ak si te li ci gën a yéeme moom laa doon junj mooy am na dëkkam bu gën a jege tuubaa ñu koy wax ndindi diggam diggam diggante pencum ndindi ma ak pencum Tuubaa mi yées na juróomi kilomètre waaye 2010 la ndindi soog a amub tali kon waa jamono war nañ cee jàng ci ne ki yor kuddu gi di séddale daa war a séddale ba ña war a am am bu desee baax na su desut mu mar loxoom waaye ci tu ci ak nekkam la sottee dugg ci sam néeg na néeg làmp yi na ràññi kon ci ay jamonoom la it la fi courant bi ñëw courant boobu itam euh, la ko yóbbu ndindi ca yooyee jamono natt ba daa ëppoon natt ba daa ëpp te moo ëpp moo gënoon yaatu moo gënoon ëpp aw nit ca yooyee jamono kon ci loolu fi ma ne jàng ci ne courant buñ koy yóbbu nañ seet fa nit ñu gën a bare rek ñu yóbbu ko fa loolu moo ko jàllale ndindi ndindi boobu moo ëppoon ay kër yeneen dëkk yi war Tuubaa courant boobu doon ñëw Tuubaa ci la dëkk yi ci des jaar ñu soog fee ñu soog caa amaale courant ba ci nduloog yëpp waaye ci ay jamonoom it ci la Tuubaa ami mbedd nga xam ne kër diw moo jëm da génn sa kër ne coow ba war a àgg làqar ci dugg kër diw waaye ci ay jamonoom it la nit du dugg ci këram daal di biij ndox mi xel li muy ndox ndox moomu it am na ca lu kiimaane du kiimaan goo xam ne dañ koy nattilante muy xar baax waaye xel mu rafet la ba forasub daru mën naan bënnee di xel xelli ñu indi tuyau yi mu dugg ci biir Touba ñu def robinet yi mbedd Senghor da ko ne ndox mi kat liy doxal wata yi moo koy wëgg essence wala gasoil mu ne ko lu ciy xalaat mu ne ko day jaay de balaa kenn nan di ndox moom lañ ciy def mu wëgg ko kon da ngay bàyyi ñu dugal ko ci budget bi gouvernement bi di doxe suñ fallu ne ko déedéet goj ak baag boroom kër moo koy jënd teg ci ëtt ba ku bëgg a rooti jël boo rootee ba feesal dellowaat fa ci digg ëtt ba keneen jël ni sa ni yow ndax bu ñu ko tegee ci yenn yoxo ku ca bëgg a xiise moroomam mën na koo xiise kon ñàkk a fayum ndox ak Tuubaa ca loolu la bàyyi ko xaw ma nag ñàkk a fayum ndox ak Tuubaa fu muy mujj ndax jamono ba mu koy def baat ba mu yoroom ba mu yoroon jaar na ci sëñ Abdul Ahad jaar ci sëñ Abdul Xaadir jaar ci sëriñ Saalihu jaar ci Alhaji Baara jaar ci sëriñ Sidi Muxtaar ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal loola mooy cosaanul e, ñàkk a fayu ndoxu Tuuba goj ak baag boroom kër moo koy jënd te moom nangu woon na bañ ko ne yaa yor njaboot gi nangu woon naa jiite njaboot kon lam jàpp woon boppam mooy borom kër boo xam ne moo war a jënd goj bi ak bàgg bi di rootal ñëpp waaye ci ak nekkam it ci la Touba amee fajukaay fajukaay yu yees yi nga xam ne mooy kër docteur poste bii nekk poste santé bii nekk 28 te ñu tuddee ko soxna Fati Jaxate waajuru Sëriñ Saalihu ci jamono Sëriñ Fallu la fi nekkoon ñu doon ko wax dispensaire am na tur yu bari yu fi jaar waaye ku tudd aañ waa Touba mën nañ ko xam kon ci ay jamonoom ci la Touba amee ab fajukaay fajukaay yu yees yi ñooy wax kër docteur waaye ci ak nekkamit la Touba amee woon ab poste post boo xam ne da ngay bind bataaxal dem fay tuuti ñu yóbbul la ko fa nga ko bëgg a yóbbu ak fu mu ne ci àdduna bi bataaxal yooyu di fa jóge di ñëw ak i mandaak ay télégramme ñoo ko wax télégramme ak yooyu yëpp ci jamono yooyu dafa nekkoon moom mi ngi fii mi ngi nekkoon fii ci 28 am na benn station bu fa nekk léegi waaye ci ak nekkamit ci la tuuba amee jaboo xam ne daf caa joxañ lu nit ñi di jàng itam muy ja mooy marché marché boo xam ne ba mu koy tudd euh, daa bind occasion Okaz ñu naan mooy ba nekkoon makkaag mu ne déedéet boobu Okaz la Okaz ak Okaz du benn Okaz ni ñu koy binde ju jëkk ja Okaz bi ma wax léegi ba nekkoon makka mooy ayin ngay def def kaaf def ëllif def fa comme sirata nga def ci ab tomb taa googu nekk sirata nga def ci ab tomb muy Okaz waaye moom jim bind mooy ayin kaaf alif mu xëcc kaaf gi ak raaguñ tomb ca kaw googu ukaas la muy tekki mooy bant boobu nga xam ne moom la ñi dem ba ci mag wala ñu am gàllankooru tànk dolli koo ko def ko ñetteelu tànk bant bant boobee moo tudd ukaas ñu koy wax aw jàkk wala aw yat rek wala ab tom lam si jublu mooy li tax sëriñ bi sañ ci dëkk bi li taxoon mooy jaamu fi yàlla ak liggéey fi mu ne kon nañuy liggéey ca jaba mu doon bant boo xam ne day dimbali nit ki bu julli jotee mu dem julli ci ci jumaa jooju nga xam ne ci la jëm si woon ci ak nekkam itam ci la Tuubaa amee jumaa joo xam ne moo ko ràññale ak dëkk yu bari néew na ci Sénégal dëkk boo xam ne bu koy tudd dañ cey tuddaale jàkk jumaa Touba moske turu officiel am mooy Touba moske nga xam ne Touba gone mën naa am beneen dëkk bu nekk amit waaye dëkk boo xam ne dañ koy tudd tuddaale juma moom it ci ak nekkam la sottee tàmbali woon nañ ko ñaan këyit jamono Sëriñ Touba borom Touba tàmbali ko jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha ba El Hadj Baara mi nga xam ne fekke woon na te bi Serigne fa luy jël liggéey bi gannaaw Sëriñ Mouhamadou Moustapha. am na lu ëpp ñaar fukki at ak juróom nee na am na ci wet goo xam ne ku xawa a am taxawaay tuuti bu yëkkatee loxoom laal ko fam yemoon waaye am na ci wet yoo xam ne itam yi ci gën a bari soo daqee bay fitnaal ko mën na koo tëb jàll foofu la fekk jumaa ci waaye moo ko ànd ak taalibe yëpp kenn ku ci nekk def lam man ñenn ñi yéene ba le 7 juin 1963 dëppoo bisub aljuma mu woo àdduna bépp àdduna bépp sax yaatu na ba ëpp waaye waxin la mbooloo daal daje woon na ñii ci diina la ñuy yëngu ñii di yëngu ci nguur ba sax am na ci kook ma nga jóge woon Nigeria ñu di ko wax Ahmed Bello kon daal loola it la muy tekki mooy loxoom tàllaloon na ko ñu baree baree bari ba waa bitim réew Ahmad Bello moom fekk na bi ñu jullee jumaa ji ñi ci biir réew mi moom jëlale nañ leen kuy jóge ba Nigeria ci yooyu jamono di ñëw di fekk si jullit jumaa ji moom ñi si ci biir réew mi waxaale wu ñu leen seeni tur yëpp xamees na ko waaye jataay bi du ko maye. na ci yim sottalit euh, loo xam ne tudd naa ci njëlbeen euh, aji na Makka waaye ci ndimbalu suñu borom it. jàpp na ci ba mbooloo mu bari mën a dem jooxi seen farata jooju te am na ko mos a ñëw ci jamonoy Alaaji Bara boobu moo fi nekk xam naa ne kooka jikk koo wax daa ñëw ne ko dama dëkk ci dëkk boo xam ne ko ajiwul Makka doo taxaw ci sàppe su jëkk si ca jàkka ja sakkantuma di am kàddu ca pénc ma Alaaji ne ko nga ne mu ne ko noonu la demee mu ne ko yow de bu fekkee dund nga ba aj ñëw da nga dem Makka ren te li ma gën a wóolu mooy kooku jëkkut wax lu mel noonu bëkkut a jëkk dem jëkk dem Makka ci kooku anam lim bi mu yóbbu Makka yit xam naa ne ku ko yàlla xamaloon lim bu ku lay doon ñi nga xam ne it seen bët daa xonq ñu jaaxle jaaxle goo xam ne yàlla rekk lañ ci yaakaar waaye ay sabab mën na ko sottal kenn xamul ñaataa ñëw ci moom mu fajal leen ko ko daa far ay ronkoñ dal la koo xam ne yaakaar dawut tase fa moom te moo ne taxu ko woon yorlu ne gàññ nag ndax euh, ndax yu bari yuñ ci mën a wax ak yoo xam ne mu mënu su ko wax waaye daawul wax négal ba suba daawul wax négal ba ngoon soo ko fa fekkee fa saasa la sa aajo di faju ñi jaxasoo woon ak moom lool suñu Maam Mor nee na ma rahmatullahi alayhi am na yaar yaar ñaari baat yu mu daa faral di jëfandikoo yoo xam ne ki muy waxal dana xam ba xam li muy tax dana sotti léegi waaw wala déet su ne su ko waxee yitteem mu ne ko sallaahu sallaaw mooy sha allah dana xam ne dana sotti tey su ne ko incha allah nag bee boo nga ñaanlu te xam ne nekku fa waaye dina demal ba ngoon dina demal ba beneen waaw ak yu bari waaye ku ma ku ma doon kóllëre la ndax euh, bi ñu demee ba jumaay Tuubaa ji noppi daf ne kat faw Mamour jaara ñu njukkal ko jox ko àllarba daal di tawaxal Mamour Diarra ci pénc ma fekk ko fi waaye jariñoo nañ ko lu yàgg mooy jumaay Mbàkke Xewar jee moo ko jëkk a tabax gannaaw suñ sëñ Modou Bousso Dieng yeesalaatoon na ko waaye waa Gédé itam noona amoon na yéene it lawal ko fu sampub sëñ Tuubaa nekk gannaaw jumaay Tuubaa ji noppi na te ñoom ak ñoom ñoo ko bokkoon mu lawal ko fa ba foofa am jàkk boore am jàkk boore am jumaa am jumaa kon daal njariñul nit ñi moom ràññi ko na ci loxoom lool bari na it lu ca sotte moo jëkk jëlit ay ndaw jële leen fii Sénégal jël ci alal yi alal yi murit gi yóbbu leen ci ñu wuti xam-xam am na ci ñoo xam ne bu ñu déggee seen tur danañ ko xam ak it seen i it ñuñ xam lañu am na ñu si baree ngi dund sax ñi si ëpp ngi dund ñi ci ëpp ngi dund waaw kon ku gisoon fu sori la waaye suñu muntaxaa it euh, xafidahullah tollanti na ko ndax jël na moom itam diggante daaw jéeg ak daaw ak ren ji ab lim ci doomi dëkk bi ak doomi jullit yi fexe ba ñu mën a wéyal seen àlluwa jaatal seen gëstu yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér kon daal bu ma ko bëggee tënk noonu euh, bari na lool lu sottee ci loxoom la te bu tuubaa mënoon a wax ciw làmmiñ suñu ko laajee mën naa wax sax yoo xam ne waroon naa ko tudd te fàtte ko waaye ab dëkk su fekkee yoon ya fa jëm ci say yoxo la sottee te sedduwoo ca benn cër courant bañ fay taal ci say jam ci say loxo la ñëwee ci dëkk bi ci sa baat euh, defal ko ay mbedd defal ko ab jax defal ko ab fajukaay defal ko post te booba am na ci dëkk yu magaale sax yoo xam ne amaguñu woon post kon village bu njëkk am post ci Sénégal euh, ku ko xamit mën na ko caa dolli waaye man moom laa ci xamagoon waaye it am jaamukaay yàlla boo xam ne lañ la woon li sëñ bi bind na moo taxoon moom sëñ ci dëkk bi ku tuddaale Touba tuddaale ko ca muy Touba mosquée noonu la tudd officiellement kon bokk na ci lim sottal euh, moo waxoon ne jëlee naa ko ci ñu bari <clears throat> ñoo xam ne fekk nañ mu wax ko ne bu ma ci noppee moominatu ci boppam dana ko mën a jiite soxna moomi rakkam moom suñ ci waaw maanaam nosu boo xam ne ku war a jiitu day jiitu ña ca war a topp topp ca muy def la war a def ñu topp ko ak lañu war a def topp ci ginnaawam kon lam waxoon rek mooy feeñaat foofu néew na ci senegal foo koy tudd te xamee su kenn xamu ko fa mag ma fa ne daan la bu dee mag tuuti man ba ma fa demee ka kooka mag naan la sama baay ka kooka mag naan la sama maam lam la muy firndeel mooy lam xëyoon bis wax ne man may Sénégal may Sénégal ji nag limale na ci ak bokk bokk mbokkum Sénégal gépp la limale na ca bokkoon na ñëpp lay firndeel Sénégal ci Sénégal gu mujj gi ginnaaw 1960 mooy tampon yi nga xam ne dañ koy tampon ne te nguur di ko def ñaare danañ ko def ak guy danañuy dégg it ñaan Sénégal di leen wooyee gaynde guy moom ak gaynde kenn ku ci nekk daa am spécialité ñu xam ne guy léppam njariñ la ndax danañ toog ca keram ga toj wuyam wa def ca cafaay xànc ca gëm ya ca gëm la raw ci ay buum wala ñu ràbb ci ay wasan waaye it guy kenn yëbu ko mën ngaa dégg wàcc leen garab gi di ko tere yi ba mu des wàcc leen guy gi daa jub xocc ne coow kon bu nee maay Sénégal it Sénégal guy bokk ci ay màndargaam jàngate ngi foofu waaye Sénégal gaynde dana ko mandargaal ni ñuy wooyee yeneen réew yu bari moom tur woowu lañ ko tànnal xawma ku ko tànn ak lu tax mu tànn ko waaye gaynde moom itam dug neen ndax bokk yi gaynde ku gore la ku gore gaynde yàpp dong dong dong lay lekk yàpp te gaynde la muy jàpp di ko jëfandikoo du fekk yëfi jàmbur mu jël ko du fekk lu keneen yor mu nangu ko ci moom la muy jëfandikoo da koy jàppal boppam te bu ca jëfandikoo ba noppi it du ko denc fenn day bàyyi kenn ku keneen ku ko soxla ñëw jëriñoo ko te it du ko wuti di ci sonn day nekk ba soxla ko lool ne ñaadam ñaadam taseek moom bu ko daqee jàpp ko baax na bu ko dàqut xaaraat yàlla xiif du ko tax a fortaatu mukk am ñax te gis naa ko ko xam ku dëkk Jéenu Jala Jéenu Jala boo jógee Tambacounda jëm Jala koto nee na ma gaynde mën naa lor doomu aadama waaye du ko jëfandikoo kon boog ku am ak wegu la te xam boppam lool nangoo muñ nangoo bale te it gore ci alalam ba bu jëriñoo du bañ keneen ko jariñoo kon bu nee maay Sénégal foofu am njàngat a ngi moo xam ne buñ tegee suñ tànk ak suñu loxo ci yii nga xam ne lim nañ ko ak yu bari yu munta lim digganteem ak nit ñi moom ak njariñam ci nit ñi moom gannaawam sax la gën a fës bari nañu koy tudd lool naan dañoo ñaan yàlla ci barkeem yàlla nangu seen ñaan te xamuñu sax fu mu nekk ndax xam naa kenn ci njabaru suñu fallu gi koo xam nee na ma am na ko ko laaj fa Parcelles Assainies ni ko waaw suñ fallu bu fi bàyyikoo kuy doon xalifa général mu ne ko suñ lu bàyyikoo na fi bu yàgg mu ne ko yow xamoo ci Touba bari mu ne ko ah xam naa ci lu bari ndax moo ma jur suñ boobu nee na waaja laaj ne ko ñu bari ne ndax wax na li mu wax noonu la waaw wala déet ñu ne ko dëgg dëgg nag mooy way jëram mu soog a nangu ni suñ fallu nekku fi kon boog loolu daal lañ ci amoon ci tënk di jégglu bu fekkee am na lu ci lu ñu wax loo xam ne laal naa ci kenn te waruma ko laal waaye in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer